بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي نجي سمسون بروم أجي ماجي جي تكاوي نوغي كوي باك ديكو كاني di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni moom sunu boroom rek mooy ki ko jagoo noo ngi julli di salmal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ñaan sunu boroom mu dëkkee do ci waameem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi ala saxaabati ajmain rabbana ighfir lana wa li ixwaajina alladina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom bi mu defalaatee tawfiq ba ñu dellu siwaat ci ron keppaaru xam-xam ci sunu ñaareelu bind ci man hum saxaaba wala man hum asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tey mooy sunu ñaareelu bind ci nam ma xamle ñan ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñi fekke woon bind bi weesu gisoon nañ ay leeral ci lan moo tax ñu tànn delluwaat gannaaw di waxtaanee ñan ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jubluwaay yin ci am ak njariñ yam mën a ballulu ak jaadu gu mu jaadu ñu xam ñan ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak kontaan gu nu war a kontaan ci ñoom te di leen ñaanal sunu boroom ak boole guñ leen war a boole ci sunu dund ndax ñoom la ñuy roy ndax ñoo gën a mën a roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jaadu gu mu jaadu ñu jàngal ko sunu njaboot ba ñu xam ñan ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ni képp kuy wax lu bon ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppal ni daanaka wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ni soo fi jógee ci jamono jii nga xam ni li ñuy tuddee xudwa muy koy roy dafa ñàkk su boobaa kat da nga am ay ceeñeer yu jolli leer nañ nga xamante ni dara dootu la mën a lëndëm looti ci yoon wi nga war a jaar su boobaa kat bokk na ca yem lay jural te gën caare yi mooy képp kun lay wan ci mbaax bu yonent yi jàllee te du saxaaba ya ko ko saxaaba yaa ko raw ko ko saxaaba yaa ko gën ko ko saxaaba yaa ko man ko ko saxaaba yaa ko gën a baax bal sax di ko dendaleeg saxaaba ya ak tooñ la te boo sàggantul nga mën ca am bàkkaar su boobaa dana tax kenn ku ne ci ñun mbokk yi mu xam saxaaba yi ban dayo lañ am su ko defee di nga mën a laaj sa bopp hal addaynaa xaqal asxaabi xaqal mahabbati fi asxaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo ndax nun ak biñ ameel saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bëgg leen est ce que matal nañ ko nun loolu laaj boo xam ni kenn ku ne ci ñun war na koo laaj boppam mu ndax nun ak biñ am ci défendre saxaaba yonent bi ci bu ñu déggee ci ñoom ñuy wax ci ñoom lu ñaaw mu ndax nun matal nañ ko kooku beneen laaj la mu ndax nun yittewoo nañoo moo xam dund saxaaba ya nan la meloon ngir ñu jéem leen a roy laaj la bopp kenn ku ne war na koo laaj boppam mu ndax nun bu yonent yàlla yi jàllee kan moo gën a fees ci sunu xol ci cofeel ndax ab jaam bu simple la bu bokkul ci saxaaba ya wala yow bu yonent yàlla yi jàllee saxaaba ya ñoo gën a fës ñoo gën a feeñ ñoo gën a dugg ci sa biir xol ci ak cofeel ci ak mbëggeel ak toppandoo kon bind yu mel ni mbokk yi tadkira wa dikra fa inna dikra tanfau lmuminin al imam ibn al jawzi ci ayba yu mag yi la bokk imam ibn al jawzi rahimahullahu rahmatan wasia imam bu mag la woon taalif na ay téere yu bare bare ci ulumul quran taalif na ci ci histoire taalif na ci ndax moo taalif téere bu am solo boobu tudd sifatu safwa nga xam ne day wax ci dund salafu saalih taalif na ay téere yu bari dafa am benn téere bu mu taalif tuddee ko at tabsira imam ibn al jawzi bokkut ak ibn al qayim al jawziya kee lay mi ngi tudd ibn al qayim al jawziya mooy taalibeb ibn taymiya kii mi ngi tudd abul faraj ibn al jawzi abul faraj ibn al jawzi dafa wax wax ju am solo mbokk yi wax joo xam ne jàpp naa ni ku ko dégloo xel xalam loo ci sa xol da nga yëg ni kii day wax na wax ju ñor ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji day bi ñu ko tiimee dañ ni kii day bu fekkonte ni kii day wax la lam war a wax ca saxaaba ya kii jëf lam war a jëf ci saxaaba ya kii def lam war a def kon de kii moom dañ naan moom lam war a wax ci saxaaba ya wax na ko ba noppi dani lillahi daru aqwamin أخلصوا الأعمال وحققوها وقيدوا شهواتهم بالخوف وأوثقوها وسابقوا الساعات بالطاعات فسبقوها وخلصوا أعمالكم من أشراك الرياء وأطلقوها وقهروا بالرياضة أغراض النفوس الردية فمحقوها فعن إبعاد مثلهم وقع نهي النبي صلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربكم بالغداة والعشي إلى آخر الآيات وإلى آخر قوله أيضا أبو الفرج dafa wax ci am solo mbokk yi ben lillahi darru aqwam gàcce ngaalaama dëgg dëgg yayoo ngeen mérite yéen gaa yi gàcce ngaalaama lillahi darru su ko arab waxee mooy tolloog gàcce ngalaama nit bu fekkee dafa def jëf ju ñëpp yi soow wala jëf ju ñëpp yéemu nga ne ko lillahi darru fulaan ay gàcce ngalaama diwaay mu ne lillahi darru aqwamin dëgg dëgg dëgg gàcce ngalaama ay nit yoo xam ni axlasul amala wa xaqaquha ñoom day mboolem lañ doon def dañ koo toppatoo yembal ko sonn ca ba mu wóor leen ni lii sell na ñu doog koy jébbal suñu borom subhanahu wa taala allahu akbar lépp luñ doon def dañ koo jekk-jekkal yembal ko nafar ko càmbar ko xóotal ko xeltu ko xool ko ba mu wóor leen ni lii jëmmi suñ borom ji rekk a tax ñu koy def ñu doog koy jébbali wa qayadu shahawatihim bil xawfi wa awsaquha bànneexu bakkan li ëpp ci ñun ku yàqule sa bànneex moo la yàqal mooy katub yàlla bànneexam la topp ka ja- jaamul suñu borom bànneexam la topp ka déggul ay ndigal bànneexam la topp ka bañ a def ay tere kay def ay tere bànneexam la topp mu ni ñoom qayyadu dañoo yeewoon tënk shahawaatihim seeni bànneex bil xawf ci ragal ga ñu ragal maanaam kenn ku ci nekk dafa am loo tiit moo tax ñimewoo def nangam ñoom nag tiitaange ji ñu amoon ci dajeeg seen borom moom la ñu rawoon def ko buum yeewee ko seen bànneex tiitaange ji ñu tiit nii dañuy dajeeg seen borom moom lañ jëloon suppi ko buum raw ko yeewee ko seeni bakkan ak seeni bànneex wa saabaqu saaati bi taaati fa sabaquha nee na ñoom dañ doon njëkkalante heure bi nun da ngay toog di yàccaaral aka yonjox yonjox lu ba heure bi romb la doo ca def la nga ca war a def waaye ñoom saabaqu saaati bi taaati heure bi ni muy dawee ñoom dañ doon njëkkalanteeg waxtu wi ci ay topp yàlla waxtu wu ñëw rek ni montre bi aiguille bi di wëree ñoom noonu la ñuy wëree di ànd ak waxtu wi ngir ay topp yàlla nee na fasabaquha bal sax dañoo mujj dem ba léegi ñoom ñooy jiitu heure nee na ñoom dañoo dem ba tàggatu ci njëkkalanteeg heure bi léegi ñoom ñooy jiitu heure bi maanaam montre bi ni muy dawee nga xam ni minute jàll na fukki minute jàll na fanweeri minute jàll na une heure de temps jàll na noonu ngay demee nga gis ni am na waxtu wu jàll ñoom dañ doon njëkkalanteeg heure bi ba léegi sabaquha ñoom ñoo jiitu heure bi wa xallasu amalakum min ashraaki riyaai wa atlaquha nee na ñoom kat fexe nañ ba seen jëf yi moom segg nañ koo segg ba lenn luy nuroog ngistal waxuma laa ngistal sax daawu ca bokk seeni jëf dañ ko doon segg di ko lay di ko segg di ko lay ba lenn luy nuroog ngistal daawu ca am waxuma laa sax nag ñoom ñuy def ngir ngistal wa qaharu bi riyaadati agrada nufusi radiya fa maxaquha not nañ ci tàggat goo xamante ni dañ koy tàggat seen bakkan ci bëgg-bëgg yi nga xamante ni moom la bakkan di bëgg te la muy jëme ci borom mooy tàbbal ko sawara nee na fexe nañ ba boof ci kaw bëgg-bëgg yooyu ba bëgg-bëgg yooyu mujjuñ ko matal ngir rek doole ju ñu am ci di mënikoo seen borom ci tàggatu ci mën a yegg fan jëm nee na lii moo tax gaa yu mel nii ëpp ñu ñoo sori lii moo tax gaa yu mel nii ñoom la ñoo jara xaritoo lii moo tax gaa yu mel nii ñoo dara jara déglu seen waxtaan lii moo tax gaa yu mel nii ñoo jara toogal moo tax mu ni sunu borom mu ni wala taturidi alladina yadcuuna rabbakum bilgadaati wal ashi yuriduna wajha bul dàq mukk yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bul randal bul dàq bul randal bul puus gaa yi nga xam ni ñoom dañuy jaamu seen borom ci waxtu suba ak waxtu ngoon fekk jëmmi suñu borom ji rek lañ ci bëgg ñooñu moom deel toog ak ñoom waaye bu leen di dàq mukk mu ni saada saxaifuhum min al akdaari saafiya mu ni lépp li nga xam ni mooy mën a xajamal fooy wi malaaka yi di bind say jëf rek ñoom dañoo fexe woon ba la ca di erreur lépp la ñu rectifié génne maanaam kenn ku ci nekk ci ñun ñàkkul moos yal na yàlla suturaal ñu te yërëm ñu ñàkkul moos boo xoolee say fooy yi dem ay gàkk gàkk yu bari yu ñu rectifié ma nga ca yu ñu war a rectifié ñoom nag dañoo fexe woon ba seeni fooy yi jëf balaa muy dem rectifié nañ lañ ca war a rectifié ba mu set wicc wartafaat amalukum bil ixlaasi daafiya seeni jaamu yàlla yi escorté nañ ko ba sellal giñ ci bëggoon doon ko ca def moom lañ ko escorté ba mu yegg fa sunu borom subhanahu wa taala nee na wa asbahat nufusukum an dunya mutajafiya mujj na ci tàggatu googu ñoom saxaaba yi dañoo dem ba seen bakkan yi dañoo foñ àddina da ngay xam ni ñii moom buñ naan diw jubawul ak diw kon da nga naan ñoom jubawuñu ak àddina maanaam neexoowuñu da ngay dégg ñu ne diw ak diw dañoom seen rab jubawuñu diw ak diw dañoom neexoowuñu mu ni kon saxaaba yi yeggoon nañ ci tàggatu gi lam leen jural mooy ñoom ak àddina neexoowuñu woon mu ni wan naasu fi axlaatin wal qawmu fi aafiya nee na nit ñi ña nga ca jaxasoo nit ñi ña nga ca jàmm waaye ñoom moom mënuñoo nekk ci jàmm lan moo tax mënuñoo nekk ci jàmm mooy kenn ku ci nekk ci ñoom ma ngay préparé ak a waajal foo yu jëfam buñ ko koy jox nuñ ko koy joxee ak ndax dana texe wala du texe nee na moo tax yàlla daal di teel a orienté jàngalekat bu mag bi ni ko wala tatrudi alladina yadcuuna rabbahum ñii moom bu leen dàq mukk ñi nga xam dañuy jaamu seen borom bil xadaati wala ashiyi yuriduuna wajha ñii moom booy lañ ci seeni mbir mu ni dumuuhum bil ahdaaqi muxdiqa nee na seeni rangooñ soo xoolee fa xarxa noox nooxa bët nekk nga wàcc mu romb diggante bakkan ak lepp jëm ca gémmiñ nee na boo xoolee dafa def aw yoon woo xam ni da ngay xam ni ni fii boo leen xoolee xam ni fii la rangooñ yi daan jaar ci tiit bu ñuy tiit ci seen borom nee na wa ruusukum fi l asxaari mutriqa koo ci ñëw fajar këram rek mu ne yaa nga fekk ma nga sëgg loos wa ni ku rus ndax tiit gu ñuy tiit ci dajeeg seen borom ndax waxtu woo waxtu jéggal suñu borom la bokk na ci li yàlla li mu taggee saxaaba ya bokk na ci li mu taggee waa ajana mooy wa bil asxaari hum yastaghfiruun ñoom de bu waxtu njël jotee fekk pare nañ ci naafe la yañ doon def ña nga ni teg sëgg ni ku rus fekk ña ngay jéggalu seeni bàkkaar te jaamu yàlla gu am solo ngoog mbokk yi abdullah ibni amar bëkk néegam boobu ñu tuddee naafia nee na bu mosaana naafila ba noppi day toog ci sajaada bi mu doon jullee di jéggalu suñu borom jékki-jékkam yàgg mu ne naafia génnal xoolal ma ndax fajar xar naam déet naafia génn xool ni ko fajar xar a gudde mu ne mu continuer nee na ba keroog muy arrêté day fekk ma ne ka fajar gi de xar na mu doog a arrêté jéggalu yi mu doon jéggalu suñu borom kaanu qalila min al-layli ma yahja'un mu ne wa bil ashaari hum yastaghfiruun loolu bokk na ci li leen may ba ñuy séddale ajana ñoom ci sédd yu njëkk ya la ñu am nee na wa akufahum bima taskubuhu min al xay fi l xayri munfiqa nee na seeni loxo ni loxo mën a yàbbeekoo di joxe nee na ñoom dañ doon njëkkalante ci di joxe seeni alal ndax xam nañ ne alal jooju ñuy joxe am na lu mu leen di jural ci lu rëy ci kanam suñu borom gis ngeen Aboubacar naka suñu borom taggee woon bokk na ca mooy dëggal yonent waaye bokk na ca mooy di joxe alalam ci yoon suñu borom nee na wa nufusukum baada al jiddi min al lawmi musfiqa nee na ñoom de seeni bakkan ginnaaw yedd guñ leen di yedd maanaam jamono ju aaya wàccee jamono ju yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam ak yeddaa ngi ñëw nee na ñoom dañuy bàyyi lañ yedd ba pare wëlbatiku di tiit bu aaya dikkee di digle ñoom dañuy def lan digle ba noppi wëlbatiku di tiit te jàpp naa ne ñun ñii ku ci def la la war sa xel day dal ku ci bàyyi lan la bàyyiloo sa xel day dal loolu la aaya ji doon wax naan ah walladina yu'tuuna ma aataw wa qulubuhum wajila dañuy joxe li ñu am ba noppi wëlbatiku di tiit ah ba ko ba ko yonent bi tekkilee saxaaba ya dañi ñoom kat dañuy def leneen war ba noppi waaye ña ngay tiit ndax yàlla subhanahu wa taala nangu na ko wala déet nee na ñoom de dañoo ñëw ci déeg bi nga xamante ni fa lañ war a tànqee nee na ba ñu fay ñëw ak tilim tilim yu ñu àndal yépp fexe nañ de bala ñu faa jóge root nañu root gu rafet sippeeku ci ay bàkkaar ba set wicc moo tax yàlla ne yaduuna rabbakum bil gadaati wal ashi ña ngay jaamu yàlla waxtu suba di ko def seen waxtu ngoor nee na xallasu al amala min al akdaari naflan wa farda fexe nañ ba seeni jaamu yàlla yi muy farata ya muy naafila ya góorgóorlu woon nañ ca lun man ba di ko sellal jëmmi suñu borom ji rek tax nee na wajtahadu fi taati mawlaakum li yarda góorgóorlu nañ ba nan doon toppee seen borom dañ koy topp toppiinu ku bëgg ku la gërëm gis ngeen doomu aadama diggante nit ak morom ma rek sooy defal nit bëgg mu kontaan ci yow gis nga ni ngay sonnee pour mu gërëm nee na ñoom bu ñuy jaamu seen borom da ngay xam ni ñii bëgg ki leen digal kontaan lañ koy jaamoo nee na wa habdu anfusakum li talabi al hazz al ahaz ahaz ahaz habbo dañ doon soññ ak a bëmëx seeni bakkan ngir cër yi ñuy séddale yi ci gën a kawe na fekk ñoom ñoo ko am te it am dañ ko nag wa gaddu absaarahum an gaddi shahawaati gaddo nee na dañoo sajjoon seeni xef lépp loo xam ne mooy bijj nit ki di ko yóbbu ci bànneex wala mu ko mën a yàqal rek boo seetloo sajj nañ ci seeni xef nee na fa ida absartahum raayta ajsaadan mardiyi allahu akbar nee na saa soo leen xoolee rek ak loo dofe dofe dofe dofe boo leen xoolee di nga xam ni ñii ñu yàlla gërëm lañ subhanahu wa taala parce que day feeñ de day feeñ xasan al basri wax na ko dafay feeñ aima yeneen ñu du ñoom wax nañ ko dafay feeñ asmaan ibni affan tamit wax na ko nee na soo leen xoolee da ngay xam ni ñii moom neexut ba neexut waaye yàlla gërëm na leen subhanahu wa taala nee na wa uyunuhum wa uyunan qad alifat sahar nee na ay bët ngay jàkkaarloo yoo xam ne ñii ñàkk nelaw guddi tàmm nañ ko miin nañ ko léegi da ngay gis koo xam ne benn guddi rek bu ko nelawul mu feeñ ci moom waaye ñii moom boo xoolee seen bët yi da ngay xam ne ñii ñàkk nelaw guddi ñu ngi koy bëgg a miin nee na fa ma takaadu topp ay mu rat rambo xaw tuuti kon rek boo ñeme woon a wax ñii ñoom duñ nelaw guddi loolu ngay wax ndax la ñuy nelaw tuddatut nelaw ndax bu fekkee yow da ngay nelaw guddi gi ba mu jeex tàkk ba léeg-léeg sax fajar gi da ngay biddanti waaw kooku moom nelaw na waaye bu fekkee ñoom la nit di nelaw boo ko xaajee ñetti xaaj genn wàll ga nelawuñ ko su boobaa xaw tuuti kon nga ñemee wax ñii duñ nelaw guddi nee na baadaru amaarahum li ilmihim annaha saatun tanqadi nee dañ doon njëkkanteeg seen dund gi ndax xam gu ñu xam ni fan yiñ fii am dafay jeex fan yiñ fii am ay fan yu gàtt lañ fii am da nga ci jàng siira kenn yaa nga yaakaar ne léeg-léeg nga dégg ñun ci sunu gàtt xel da ngay dégg nit yéem ñi bañ naan nit ki diw du nit dëgg la nit ki li mu wax baaxul waaye gis nga ku mel ñu mel ni saxaaba yi ku cay wax lu mel noonu da nga naa ko ah déedéet ay nit lañ waaye nag doo ko yedd gis nga ku xool saxaaba yi ba mu yàgg mu ni ñii moom du ñu ay nit da nga naa ko déet xon kay ay nit lañ waaye nag wax ja doo ko ci yedd li tax doo ko ci yedd mooy da ngay gis ay yëf-yëfaan yu la yéem yoo xam ne da ngay xam ni kii ni ñii du ñuy nit wax dëgg yàlla dafa gis loo xam ne est ce que ñu nit ñi mën nan ko nee na looloo waral fa amaddahum bil awni sarmadi yàlla nag daal di di roof nag ndimbal ndax dañ doon góorgóorlu walladina tadaw xam ngeen ni yàlla mu ni zaadahum hudan walladina tadaw ñi doon juum jéem a jub jublu di jéem a tege tegelu ci yoon wi zaadahum hudan yàlla mu ni maa leen di dolli njub wa aataahum taqwaahum gis nga kon ndekete booy jéem a tege tegelu ci yoon wi yàlla teg la ci yoon wi booy jéem a jub jublu yàlla jubal la booy jéem a baax baaxlu sunu borom baaxal la moo tax mu ne yaduuna rabbakum bil gadaati wal ashi nee na ibtalaakum faradu wa sabaru nee na yàlla natt na leen de waaye wallahi muñ nañ natt ya te gërëm nañ la sunu borom def laajal sa bopp yow natt yi la yàlla teg ban ak ban la boo paree nga laaj ndax kontaan nga ci ak ndax gërëm nga ko yaakaar naa ni mag mu bëgg a tàbbi ajana du nax boppam ndax boo naxee sa bopp it yaa ko yëg laajal sa bopp natt yi la suñ borom teg ak natt lu mën a doon nag ci wér gi yaram gi la ca ca alal ji la ci doom yi la ca sëy ba la ca ca ca ca lu mën a doon sa liggéeyukaay la natt bi la suñ borom teg ndax gërëm nga ko ndax kontaan nga ci ndax muñ nga ko te li gën a yéeme mooy da ngay foog ni muñ nga fekk muñoo ndax am na loo xam ne ku ko def muñoo leneen nga foog ni gërëm nga fekk gërëmoo da ngay gërëm gërëm lu léeg nga yaakaar ni muñ nga gërëm nga fekk muñoo gërëmoo da ngaa ñàkk pexe boo amoon pexe def ko xeeti tuuma yu mel noonu kenn ku ne ci ñun mbokk julit yi bu bëggul a nax boppam moom lay teg ci kanamam nee na wa anama alayhim fa atarafu wa shakaru yàlla xéewalal na leen ñoom saxaaba yi waaye fa atarafu dañoo reconnaître xéewal yi yamuñ ci reconnaître ko waaye sakaru dañoo sant suñu borom laajal yow ndax reconnaître nga xéewal yi laajal ndax sant nga ndax boo yaakaar ne alhamdulillah rek moo di cant léeg-léeg sant day ñëw nekk ay jëf i'malu ala daawuda shukra wërsëg bi la suñu borom jox nga di ci dimbali te yàlla tax xam-xam bi mu la dénk nga yéwén ci lool te yàlla tax moyen yi mu la dimbali nga yéwén ci lool te yàlla tax ila axirihi loola day tudd sant moo tax yàlla bi wax waa kër daawud dañu i'malu sant gi jëf leen ko i'malu ala daawuda sukra cant gi jëf leen ko wa qalilun min ibadi shakur nee na ñoom jaaw bi kulli ma yurdi thumma atadaru allahu akbar mboolem luy gërëmloo yàlla di ko kontaan loo rek fexe nañ ba andi ko bañ pare nag di ca teg ay jéggalu di ca teg ay jéggalu mbokk yi ku góorgóorlu ci lañ la sant boo noppee loo jéggalooti ki nga di defal nangam ak nangam bu heure sangam jotee wàccal ah soo paree yanul nangam yóbbu ko ci barab sangam soo àggee tekki ko defal ma ca nangam ak nangam boo fa jógee mën ngaa wàcc mu defal la ko nanga ko bëggee ba pare mu wàcc ñëw naan la maa ngi jéggal lu muy jéggalooti lu muy jéggalooti parce que xam nañ ni màggaayu sunu borom fooraayam kawewaayam sellaayam ak ni nga xamante ni noonu nga ko war a jaamoo dëgg-dëgg jaamu même bu la santee nga foog ni def nga lam la sant yëgal ni manqueel nga lu bari moo tax boo sëlmalee ni astaghfirullah te bu doon xelam doomu aadama boo sëlmal da nga naan alhamdulillah ndax yàlla mi la baaxe nelaw loo say morom ñeene ca garam place ñeene ca caaxaanukaay ba ñuy nodd ñu di ko dégg te mënuñoo jóg yow nga jóg dem julli ji su doon mbirum xel rek la boo sëlmalee sant yàlla nga war a def waaye boo sëlma da ngaa war a jéggalu sunu borom ndax ku màgg ki nga taxaw ci kanamam war ngaa yëg ay gàttañ yu bari yoo xam ne def nga ko boo nee astaghfirullah sa jaan wàcc moo tax mu ni jahadul aduwa ah dañ doon jihaad ak seeni noon fa man xashaat alxarbu xatta zafiru te ñoom kat li gën a yéeme mooy dañ koy àpp nag gañe mbaa dee gañe mbaa dee gañe rek mbaa dee moo tax yàlla naa ne wa is yaidukum allahu ihda taifatayn annaha lakum wa tawadduuna anna data gayra zata shawka takunu lakum moo tax sunu borom naan leen ah ihda alxusnayayn benn ci ñaar yu neex yi gañe indi màng ma mbaa ñu rey la nga dem ajana est ce que yëg ngeen mbokk julit yi saxaaba yi saa bu ñu jugaan di jàmmarloog seeni noon yéene boobu la ñuy yóbbaale wallahi ci siira ngay liir ku dem xare ba noppi julit ñi gañe muy ñibbi siy jooy parce que lam bëggoon amu ko lam bëggoon amu ko d' accord na mbooloo mi gañe loolu jëpp ko bokkandoo bëgg waaye moom personnellement lam bëggoon mooy shahada moom na fi jóge la bëggoon parce que gëm nañ ni liñ fi luñ fi gën a yàgg rek gën fee yàq gëm nañ ne luñ gën a gaaw a dem gën a gaaw a xéewlu gis ngeen doomu aadama question de gëm-gëm la gis nga fii ci ceddo gi fii rek sunu réew mi ba ñuy ba ñuy ne nit ñi nekk ci ceddo nga xam ne nit ki danañ gëm mbirum deret nga xam ne ku laal sama deret da tey ma tukkal addina bi da ngay gis kuy génn këram miraas boppam tàggoog njabootam lépp te xalaatul ajjana xalaatul dara parce que boobu islam ñëw xoolal ngëm-ngëm boobu nan la ko ab ceddo mën a amee fa kayfa ki nga xamante ni xadafa allahu nura al imaana fi qalbi ki sunu borom subhanahu wa taala sa mbërtal leeru ngëm ci xolam kooku ban yaakaar ban yéene ban bëgg-bëgg nga yaakaar ne mu lay jugaale lu dul na gañe mbaamu sa it dem yoonam moom nee na fanaalu gaayat al imkaani min al makaani al ali moo tax dañoo demoon ba wax dëgg yàlla place ya gën a kawe ah yi nga xamante ni nit ñi gën a foor ca la ñuy toog mu ni boo séentoo saxaaba ya nga cay séen moo tax yàlla ni yaduuna rabbahum bilgadaati wala asi suba ak ngoon rek ña nga ca santaane ya nee na kaan qulubuhum bilxaqi mutaalliqa koo ci gis rek gis nga waaju dëgg koo gis ci saxaaba yi mu ne gis nga waaju dëgg la ko waral mooy kenn ku ci nekk am xelam daf koo tënkoon ci dëgg am xelam daf koo tënkoon ci dëgg kenn du la wax ci ñoom lu mu gëmul kenn du la wax ci ñoom lu mu nar ta def kenn du la dig lu mu nar ta joxe kenn du la wax fekk daf lay nax déedéet ñoom ñoom wax dëgg yàlla seeni kaf amoon nañuy kaf de waaye daawuñ kafe yooyu daawuñ kafe yooyu de ay dama lay nax ak dama lay nangam ñoom daawuñ kafe yooyu de parce que seeni kaf àggul woon foofu lu nite nag nga xam ne niteeg doomu aadama la ah comme ni ko saxaabi bu màgg ba doon defee abdullah ibni xusafa jékki-jékki ba mu yàgg bàyyi ba yonent bi jàll mu téqatal giléem gi ah balaa yonent bi fekk du daanu waaye bala muy daanu mu gaaw toojuwaat ko fekk yooyu ay xeeti kafante yoo xam ne day bégal bakkante lenn ci sikk amu ca waaye nag di wax lu dëgg nag lu dul dëgg déedéet bokkul woon ci seen i kaf nee na wa anwaaruhum ala zawahiri mutaalliqa nee na koo ci xool jëmm ji rek da ngay gis ak leer koo ci xool jëmmam rek da ngay gis leer ngay leer xati nga xam ne xel kii moom ah du ñu tub ordinaire de kii moom du ñu tub ordinaire nee na saa boo xamante nii rek seen xiinu xiif gi ci bëgg a def ngërëmul sunu borom wuri na rek nga daal di gis mu commencé taw ay rangoo ñi réccu ak jéggalu seen borom yàlla subhanahu wa taala nee na yaxsiluna bil bukaai dunuba saxa dunuba saxaif nee na bàkkaar ya nekkoon ci seen fooy ya suñ ko bëggee effacer tey boo jëlee tableau nga bëgg a effacer looy jël éponge ngay jël ba mu ni ñoom saxaaba yi bàkkaar yi leen bindaloon ci seen jëf yi suñ ko bëggee pomp mu ni seeni rangooñ lañ ko doon fompee ci di jooyal suñu borom nee na xawfuhum shadid wa ma fihim muxaalif ragal gi nu ragaloon yàlla subhanahu wa taala ñoom saxaaba yi mu ni tar na lool koo ci gis nag koo xam ne da nga naan kii moom wax dëgg yàlla ku doyadi la ci seen biir doo ko fa gis nee na ida janna laylu fal qadamu waaqif saa bu guddi jotee nag daanaka rek nga daal di seen nag ndëgg yu tàmbalee taxaw amul kër gooy dugg lu dul da nga gis naa firkatu guddi yaxnuuna ila alxabibi xanifa sharif gis nga gëléem gu màggat ba mënta wëtti gëléem gu màggat ba mënta jóg gëléem gu màggat ba buy jóg dañ koy yëkkati gëléem gu màggat ba bu ñuy sàmmi du dem gis nga bu ñuy yóbbu moroomam yi noonu muy onkee nga xam ni kii kat bëgg naa defe li moroom yi def te mënu koo def nee na onk yu mel noonu moom ngay dégg saxaaba yi di ko onk jamono bu ñuy jaamu seen borom nee na addamu musaid nee na li nga xamante nii mooy rangooñ yi daf leen di dimbali ci jaamu yàlla yi wal xusnu muaasif musaif nee na njàqare gi ñuy am nag ci seen borom moo leen defalaat tuuti mu ne alimu anna dunya mataaun yafna fa abaruha wa ma amaruha lissukna dañoo xamoon ni addina bii du këru saxukaay ndax xoolal mboolem ñi ñu la fi nett li ñu baax ñu ak ñu bon ñu jekku woon addina lool ana ñu tey maatu jamian wantaha al xabar dee nañ ñoom ñëpp xabaar yi jeex na kenn waxatul seeni wax kenn du waxati seeni wax yëfi diw yowoon rek ngay dégg jeex na kon kooku bokkatul nee na loolu tax abaruha dañ coo def pont pour jàll wa ma amaruha li sukna defuñu ko woon dëkkuwaayu ku nar a sax moo tax imaamu nawawi lu mel noonu lay junj ci tàmbali riyadu salihin inna lillahi ibadan futana tallaqu dunya wa xaafu lfitana yàlla am na ay jaam yu yeew jaam yoo xam ne fii ci àddina ñu muus lan ñu yeewu lañ fase nañ àddina ñetti yoon moo tax fas yéene wuñ koo fayleeti ah dañoo tiit fitna tàbbi ci seen kaw ba ñu gisee xam ni géej la te faw nga xuus jàll te boo sàggantalul lap ay jaamu yàlla lañ jël tegalante ko daaj ko gaal yéeg ca joggi jàll allahu akbar ay jaamu yàlla lañu jël teg ko dóor ko daaj ko teg ci ndox mi joggi jàll jaamu yàlla yi rek moo la mën a musal moo tax ibn alqayim di wax ni tarju najata walan tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala yabasin yow da ngaa yaakaar ni da ngaa bëgg a mucc te yoon wi gaa yi bëgg a jaar ba mucc nanguwoo faa jaar mu ni loo dof dof dof war ngaa xam ni gaal gi dox ci suuf si gaal du daw ci suuf inna safinata gaal laa tajri ala yabasin suuf su amul ndox gaal du fa daw mooy soo bëggee texi te jaaroo ci yoonu gaa yi muy góor ña muy jigéen ña yégal ni yaa ngi nax sa bopp nee na ñoom day ishtagalu bi daari bi daarin kullama naqadat hadihi tabanna ñoom day dañoo góorgóorlu woon ci kër goo xam ni këru këru maanaam këru luy jeex ca lañ doon góorgóorloo ngir tabax seeni kër yi la nga xamante ni moom mooy ñëw ay kër ya nga xam ni ah doomu aadama su fekkente ni da koy tabax ma ngi koy tabaxee ay jaamu yàlla nee na ñoom day ak waar taraqal waadu asmaahum fatalammahu lmaana nee na ñoom day waaraate gi ba mu ñëwee dafa fëgg seeni nopp waaye ba mu fëggee seeni nopp ti jël nañ ko bi waaraate ñëwee dafa fëgg seeni nopp waaye bi mu fëggee seeni nopp da ñoom ci jël nañ ko xelmati la ca nekk ci ay njariñ ñu jël ko yaxuduuna uhbata raxiil foo leen fekk rek jumtukaay yi nit kii soxla pour war a départ rek mu ñoom ñu ngi ko téye wala yaxuduuna arada hada al adna mbirum koom-koomum lu lay tardeel fii ñoom doo ko fekk mukk mu di leen diisal ah laa kibara indahum ak rëy wallahi newul woon ci ñoom taraahum bayna almasakini wa zamna foo leen fekk da ngay fekk waaju am valeur koo xamante tey bu doon sunu jamono la fa nit ñay toog du fa toog nga fekk ko ci biir jaam yi nga fekk ko ci biir gone ya nga fekk ko ci biir màggat ya nee na ak rëy amul woon ci ñoom لأن لو تأملت لو تأملتهم رأيت ضلوعا على المحبة تحنا gis nga boo leen gisoon dëgg dëgg dëgg nga seetlu leen ah wallaay da ngay gis ay nit yoo xamante ni dañoo li olof yi naan bëgg ba jeex tàkk li wolof yi naan bëgg ba jeex tàkk dañoo bëgg ba jeex tàkk nee na ñoom day moo tax it yàlla subhanahu wa taala ah gërëm na leen te bàyyiwut kenn ah وأقبلوا على قدم الفقر فلما رآهم أغنى ذكروا الجنة فاشتاقوا ولا شوق قيس إلى لبن, لبن من ينتبه صلى الله عليه وسلم متكين ينتبه صلى الله عليه وسلم لا يوحفت أم صلى ينتبه نين إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة أجنة أجنة تحديث بوبو الإمام الترمذي صلى الله عليه وسلم الإمام الحاكم سلونكو نجليكو تي أنس ابن مالك شيخ الألباني ويرل حديث بوبو تي صحيح الجامع ينت بنينا إن الجنة أجنة كب لتشتاق إلى ثلاثة دفن نمو نتمت الله أكبر يو يا نمو أجنة كنت تشتاق إلى الجنة يا كو نمو يا كو بغ يا كو لغيل يا داو دي جيم تي موم ñi nak ñoom ni aljana ci bopam mo len nam yonent bi lima ali wa ammar wa salman ñett ngi ñoo xam ne mu ni àjjana ci boppam daf leen a namm kon mbokk yi jàpp naa ne waxtaanee dund saxaaba ya ak xam seen gëdd bokk na ca la cay dimbali nit ki mooy wax ju ñor jii nga xam ni al imam ibn al jawzi moo ko wax ci téeréem boobu tudd at tabsira waaye bokk na ci nga xam dëgg dëgg dëgg gi di saxaaba ya mooy nga xool nag sunu borom lam wax ci ñoom te junjoon nañ ci lenn ci ay aaya xëy na yama jundoon daa ci bañ a jaaraat waaye yeneen a ngi ni yu cay dolleek yu lay wan ni ñii moom am nañ ay seede yu wóor li ñuy tuddee taqrir nga xam ni kii moom dafa nañ ay témoignage yu lay wan ni yow ku set wecc nga kenn topp la dara borom mi ngi wax subhanahu wa taala ci suratul fathi لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا بقي lan moo gën a neex ci kaw suuf yàlla ne la kontaan naa ci yow yow demal kontaan naa ci yow laqad radiyallah yàlla mu ni kontaan na ci anil mu'minin ci ñu gëm yàlla ñi id yubayi'unaka tahta shajara keroog bi ñuy jaayanteeg yow keroog moom kontaan naa ci ñoom loolu yéen a ngi fàttaliku ci tafsir suutul fatih ndax marra maana bi yonente bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ba jub màkka di waaj a dugg ni omar ibn alxataab kaay ma yónni la samay soxlay bopp omar ni ko yónnil keneen ndax man kat ñoom xam nga leen ni ni ma leen bañee ñoom noonu lañ ma bañee te it man bariwu fa ay mbokk te xam naa ne ñoom xiit nañ ma lool da ngay yónni ku mel ni asmaan ndax bari na fay mbokk te gaa yi wet nañ ko te ragal naa ni boo ko yónnee kenn du ko lor yonente bi ni kaay ma yónni la mu jox yonente ba asmaan asmaan dem gaa ya téye ko ñu jàllale faux information ni asmaan gaa ya rey nañ ko biñ ne asmaan gaa yi rey nañ ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa mer firndee ngoo waxoon naa ko maa ngi koy waxaat di la wan ni yonente bi sax xamul kumpa lu dul lu ko yàlla xamal ndax faat nañ Ousmane mu mer ca bay def la muy def ba alquran wàcc doog koy xamal ni ko faatuwut bu fekkoon ku xam kumpa la la yàlla wax wala kuntu aalamul xayba lastaktartu min al xayr loo dofet dofe loo xayadi xayadi xayadi bu ñee la yonente bi moom xamul kumpa ci ay tegtal yu leer ba nga xam ko defe naa bu ñu lay waxati waxi keneen doo am jotat di ko déglu yow ab julit da yeewu yonente bi salaa sallam jaayanteeg saxaaba yi lan la jaayanteeg ñoom sunu bakkan bu mu ko fekkee ñun ñëpp sunuy bakkan bu mu ko fekkee gis nga day jaayante di jaayante di jaayante allahu akbar gis nga pour saxaaba yi wan la ni ñu amee woon shawq ni ñu amee woon shawq kenn ci saxaaba yi dafa yonente bi dafa xaaj mbooloo mi ñetti xaaj am na kenn ci saxaaba yi dafa génn bokk ca mbooloo mu njëkk ma jaayante génn changé kaalaam dugg ci beneen mbooloo mi jaayante waat pour wane ni moom li may def sax dama koo gëm maanaam ñetti xaaj kon ñii bu ñu jaayantee ñee jaayante ñee jaayante waa ji bi mu jaayante ak yeneen sasam dafa changé position ñëwaat duggaat ci ñaareel mbooloo mi jaayante bi mu ko defee duggaat ci ñetteelu mbooloo mi jaayante ci la ko yonent bi doog a xàmmee sallallahu alayhi wa sallam yonent bi pare comme ñi ngi doon jaayante moom ci loxo ndeyjoor bi mu pare jël loxo càmmoñam teg ko nii daani gars yi ñoom ñëpp def nañ nii Ousmane nag laa téyel loxo bi pour mu def nii ngir ñoom ñëpp pare nañ pour ànd ak yonent sa salam seeni bakkan des ndax Ousmane du dem ñu di fi des fi ñu jaayantee ba pare rek ci la benn waay jékki-jékki ni waaw kële may seen muy ñëw ak gëleewam du Ousmane gars yi siggi xam nga ci seen biir xam nga xeeti xam-xam yu mel noonu waxoon naa ci duru si deneen ko bàyyi xel gis nga dafa am lu ñuy tuddee xiraaf ah ak yeneen xeeti xam-xam am na ñoo xam ni fi mu nekk nii bu ñu tolloon fii seen kuy rëppatal fas wuy ñëw même pënd baa ngi ko tiim sax ñu nit façon fas façon dawin yi ma seen fasu bàyyi diwa xeet yooyu ay xam-xam la nañ ko bàyyi xel maanaam suñu borom dafa am yu bari yoo xamante ni tey nit ñi dañu yaakaar ni ak njabar la ak fi fekk du njabar de déedéet njabar am na bon na lool waaye nag yëg leen ni ba léegi xam-xam am na yoo xamante ni daf fee sax ci lañ egg si ñu xam ne Ousmane la saxaaba yëpp bu ko defee xam ni kon yéen a ja yegg na yàlla mu ne nag gis nga jamono bi ñu def noonu alima ma fi qulubihim yàlla mu ni xam naa li na ci seen biir xol yi ndax dëggu nañ ci wala dëgguwuñ ci dañ doon kaf yàlla mu ne xam naa ko moo tax fa anzala sakinata alayhim yàlla mu ne ma wàcc ak dal ci seeni xol wa ataabahum ma yoolal leen fatxan xariba ndax xam ngeen ne ginnaaw loolu rek lañ ubbi xaybar moo tax borom xam-xam ñu ne fatxu foofu fatxan qariba mooy tawfiq ji leen suñu borom defal ba ñu ubbi xaybar maa ngi ca lu bare bare bari bokk na ci suñu borom mi nga muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ci suratul fatih sunu borom ni muhammadun rasulullah muhammad moom li wér te wóor mooy lu amul benn sikk sàkka loo xamante ni bu ci kenn werante moom ab ndaw la loo xam ne sunu borom moo ko yónni muy mu jëntalub ndaw di gën ci ndaw yi nekk xaatamu nabi anbiya wal mursalin nee na walladina maahu gis nga gaa yi àndoon ak ñoom nag boo leen bëggee xam bokk na ci seeni melokaan ashiddaau ala alkuffar ñu tar lañ woon te soxor ci yéefar amuñ ci woon benn yërmande parce que bañ gi mu bañ suñu borom moo tax ñu bañ ko waaye ruhamaau baynakum dañoo amoon yërmande ci seen biir mbokk yi moo ndax ñun duñu laaj aay bi est ce que renversé wuñ ko dañoo tar ci yéefar soxor ci moom bon ci moom ndax kooku lu loo def ci moom rek yeeyoo na ko waaye bu dee ñi gëm yàlla ñoom dañoo amoon yërmande ci ñoom am ñeewante ci ñoom est ce que du sens contraire moo ñu bëgg a dal ñun léeg-léeg xeeti een wala coxor wala añaan wala yàqab der wala wax lu bon wala bëgg xaw suturaam gaaw a xawee ko wala xamal ko lu bon wax ko dafa mel ni ñun yooyu daf ñoo neex ci sa mbokkum julit maanaam daal balaa sa xol a sedd nga xaawee sutura mbokkum julit mbaa mu xawee ko nga yëg ko balaa sa xol a sedd rek nga am lu lu lu waxtaan neex da nga xamal ko lu bon nga ngolli say tànk wax ko allahu akbar nit dala nekk ak moroomam ci saxaaba ya xamal ko lu ni weng loo xamante ni am toj penc la li wala fi tuddee am toj penc loo xamante ni boo ko waxee rek penc mi toj nga xamal ko nit ba pare nga ni pat ndax jamono jooju fekkoon ni sudurul abrar sun sunduqul asrar sudurul abrar sunduqul asrar ñu baax ñi seen dënn yi moo nekkoon armeel yi ñu doon suul secret yi xam nga ne armeel bi ñu fa xësee suul jeex na armeel yooyu lañ doon suul secret yi lu fa dugg rek xabaru kaana ngay doon déet ñoom duñu xawi sutura nee na boo leen gisee da nga leen fekk rukka an sujjada ak a ñoo mën a julli ak a ñoo mën a rukoo ak a ñoo mën a sujuud yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana foo leen fekk rek seen objectif numéro un mooy ngërëmal suñu borom ak njéggalam siimaahum fi wujuhihim min athari sujud koo ci xool xar kanam ga rek nee na jeexintali jaamu yàlla yaa nga fa xëy na borom xam-xam yi ñeneen ñi ngi wax xam nga nit bu yàggee sujjóot rawatina booy sujjóot ci loo xamante ni dafay dafa dafa ñagas gis ngeen bu yàggee day def benn tomb tomb bu ñuul ci sa jë am na ñu wax ni loolu la waaye dee du ko li lay wane du ko waa bu fekkee waa ji jullikat du sujjóot ci loolu kon du ko am waaye xasanul basri biñ ko laajee loolu nee na gaa yi dañuy yàgg a wéet ak sunu borom ci lënd mi guddi gi sunu borom meleen leen taxañ leen ci li nga xamante ni mooy ak leeram nga xam ne dañuy leer nañ mu wóorul leer gi fa sunu borom la bàyyi ko Usman ibn Affan nee na tàggatu gu ñu yàgg tàggatu ci jaamu yàlla yi mooy war dafa mel dafa am benn ay étincelle ay leer yoo xam dafay génn ci seen xar kanam yi fekk topp guñ doon topp seen borom moo ko waral mu ni mandarga moomu da da ku feebar du ko mën a gis mandarga moomu ku feebar du ko mën a gis ku feebar du ko am waaye ku feebar du ko mën a gis nee na seen misaal noonu lañ ko yàlla misaal ci tawraat noonu la ko misaale ci injil mi ngi mel ni gubu dugub wala am mbay moo xam ni dugub la focc na palpal na def na gub gis nga de focc na palpal na def na gub focc na palpal na am na gub résultat génn na nee na gis nga bi résultat génnee fastawa ala suuqi yujibu zurraa li yagiz bihim alkuffar gis nga jamono boobu ku la yéenewul nawet bu baax rek xolam dana tàng boo bayee dugub nga bay raabu bay ba xaw xotti mu doog a tombeeg dugub ji palpal dugub ji focc su foccee tuuti rek nga gis mu commencé palpal su palpalee tuuti rek nga tàmbalee mu am ay gub di def aw fepp gis nga jamono jooju ku la yéenewul woon nawet bu baax xolam dana tàng parce que day xam ni di nga am nawet bu baax moo tax jamono ji ñu foccee palpal génnew gub muy mérite yi nga xam ne saxaaba yi am nañ ko ak ndam li ñu am ci addina bi yépp mu ne la yaxiisa bihimul kuffaar moo tax yéefar yi seen xol yi day dagg gis nga aaya ji ci la imaamu daaril hijra imaamu malik sukkandiku ni képp koo xam ni ab chia la wala rafida te pas-pas boobu la fas mu ni jàppal ni bi yéefar la mu ne lu ko waral mooy bañ saxaaba yi ci boppam la yàlla tuddee kufru te wax jooju weetu ci de moom malik weetu ci de nee na bañ saxaaba yi ci boppam kufru la li yagiza bihim alkuffar mu ni yéefar yi seen xol yi da ciy tàng ñan ñooy yéefar yi mooy ñi nga xamante ni saxaaba yi jamono jooju seen xol ah dañu leen a bañ ñaata gis ngay jéegi ñuy wax lu bon ci abubakar ci omar wallahi koo ci xam mu mel noonu bul julli ci gannaaw bul yàq sa julli maa la ko wax bis ni ki tey képp koo xam ni pas-pas bi mu fas bokk na ci lii tee nit nga julli ci ginnaawam bari na moom ak ci yeneen fànn waaye bu dee fànn gii moom képp koo xamante ni xam nga ni moom day ŋàññi saxaaba yoon di leen xas di leen bañ bul sono sow di julli ci ginnaawam parce que soo paree ñaar dala ci fekk di nga baamtuwaat mbaa doo am julli kon jarul ngay sama sa bopp imam malik weetul ci wax jooju ci wane ni képp koo gis muy bañ saxaaba yi loolu ku bëgg lu ci gën a leer ku dellu ci téere bu mag boo xam ne juróom-benn mujallad la wala juróom-ñaar tudd minhaju sunnati nabawiya ibni taymiya rahimahullah moo ko taalif wax na ci ay wax yu yaatoo yaatu te bari ci bunt bii moo tax sunu borom li waada allahu alladina amanu wa amilu salihati minhum magfiratan wa ajran azima ñi nga xam ne ñooy jëf lu baax te nekk ñu gëm yàlla sunu borom ni dig naa leen ak pay ab yool bu rëy rëy rëy rëy borom baa ngi wax subhanahu wa taala ci suratul xasri للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون في سورة الحسر آية جلوم يت جلوم ينت sunu borom ni cey gaay yi nga xam ni ñu ñàkkoon lañ ndeysaan amuñ dara malgré li ñu def li muy rëy rëy rëy rëy rëy sacrifice ko amul dara la mbokk yi naka mook xam nga borom xam-xam yi dañuy wax ni sarxe bi ci gën a baax mooy juhdul muqil loolu sax xadis la xadis la loolu wax juhdul muqil boobu ci xadis la ñëw sarax bi ci gën a foor mooy as tuut si nga yore kus néew nga mën cee joxe est ce que xam ngay nit dana yore junni sarxe mille francs nit yore juróomi dërëm sarxe dërëm ba pare ëppale tiyaaba kële xam nga lu ko waral ci yéene bi la ak situation yim la fekk da ciy da ciy da ciy jeexintal li ñuy ñàkk ñàkk almuhajirin nangoo bàyyi lu tuuti lañ amakus néew uxriju min diyaarihim génn nañ leen seen kër ya wa amwaalihim dàq lañ ci seen alal ya waaye jaral na leen ko jaral na leen ko lu tax mu ne yabtaguuna fadlan min allah ay ngëneel yu bàyyi ko ci seen borom maanaam ñoom ay garab lañ doon bëgg a yëkkati ko xool ko rek ci armée bi ci police bi ca ca ca fonction yépp fonction yépp koo gis muy liggéey rek garab la bëgg a yokk koo gis muy liggéey mbokk yi garab la bëgg seetlu li ma lay bëgg a wax gis nga homme de tenue yi homme de tenue yi ci barab yi nga xam ne dañ fay dem moo xam ci tali bi la moo xam ca kaso ba la moo xam ca tir bi